avancement ñun nit ci réew ci ay droit ci opinion bi ci nit ñi ni ñuy xalaatee ni ñuy defee ci lañ koy mesurer mais bu ñu remarqué ni y toujours ces comportement sexistes de la misogynie des harcèlements il y toujours le fait de toujours vouloir considérer la femme comme étant quelque chose boo xam ne nii ku ki moo ko moom à la disposition de l'homme mais également wax ni rek 8 mars du pour une célébration mais c'est une journée de revendication jigéen yaay suma yaay ne jigéen kay jigéen suma wettaloo yow yàlla moo la suturaal ne la suturaal te woo jigéen jigéen alalu yàlla laa dey encore di amaat mbégte ak bànneex jàkkaarloog yéen suñu ay di syndicalisme TV di leen nuyu bu baax a baax fu ngeen munti nekk Sénégal waaye itam ci bitim réew tey ji encore ñu àtt ak seen invité war waxtaanee lu am solo ci wàllum 8 mars 8 mars nag bu ñu ko waxee xëy dañu dem si jigéen ñi ana lan moo sos 8 mars boobu historique bi lan la véritablement ndax ñu bëri dañ ko umpale ndax jàpp nañ ne tey jii fête bi dafa war a mën a doon folklore wala xumbate nuróole wala lan lan moo doon véritablement historique 8 mars boobee mu doon loo xamante ni gars dañ ko war a xam maanaam ba bi nga xamante ni dañoo war a gën a fësal ak jigéen gën ko dooleel tey jii loolee tax nag ñu fas yéene namm suñu tànk ñëw ba ci Pikine fekk ci koo xamante ni si ab jigéen la di yëngatu ci wàllum ak ak yelleefu jigéen di féministe Fatou Warkha Samb Fatou Warkha Samb nag comme ni ñu ko waxee fondatrice Warkha TV nekk taskatu xibaar moom la ñu fas yéene seq waxtaan tey jii ngir waxtaanee 8 mars boobu ak la ca aaju kon mbokk yi nees gis ñu seq ak moom waxtaan. jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga laama la leen di njukkale yéen a ngi liggéey bu seeni askan ndax xam ngeen léegi ne jamono changé na jërë ngeen jëf euh, internet yu syndicalisme TV ñu ngi leen di nuyu di rafetlu saa su seen ànd ak euh, ñun comme niñ ko baax euh, di defee rek saa su di seq ak waxtaan ak ñu bëri ak ay ponk yu wuute bi yoon nag ñu fas yéene waxtaanee leneen maanaam lu ñaan lekk 8 mars 8 mars nag buñ ko waxee xel yu bari dañuy dem ci jigéen ñi lan moo indi 8 mars boobee ak lan moo lalu ci euh, xew-xew boobu nga xam ne dañ koo jagleel jigéen bi loolu yëpp ñu fas yéene ko waxtaanee ni ki tey jii loolee tax nag tey jii tam ñu nammaat ñuy tànk dem seeti koo xamante ni daanaka miin ngeen ko ci écran yi di Fatou Warkha Samb moom nga xamante ni mooy fondatrice maanaam ki sos Warkha TV nekk itam taskatu xibaar féministe moom tey jii la ñu fas yéene seq ak waxtaan mu dalal ñu ñu nuyu ko mu bàyyi ko mu nuyu ak internet yi seetaan syndicalisme TV soxna faatu ñoo ngi lay nuyu. maa merci beaucoup ci invitation bi maa ngi nuyu également ñiy seetaan syndicalisme TV yëpp di leen jaajëfal di leen dalal ci ñëw bi. jërëjëf soxna Faat wax naa ko sànq tey jii nag waxtaan yi mu ngi lalu ci 8 euh, mars te jii bu ñu waxee 8 mars bu ñu revenir tuuti en arrière euh, historique bi euh, tey jii boo ñu doon explique un tout petit peu lan lay doon. waa xam nga 8 mars bi ñu ko dalee célébrer rek léegi yàgg na et donc je pense que historiquement parlant du loo xam ni sax ci suñu réew bi la bàyyee ko et donc mu ngi jugee ci réew tubaab yi nga xam ni am bu ñu bëggee def ay euh, revendication ci la ñu daal di euh, créer 8 mars mu nekk une journée internationale pour les droits des femmes genre ak ak fu jigéen ñi et donc boobu léegi ñun sax Sénégal seetlu nañ ni itamit suñuy talaatay ndeer yi nga xam ni xew na fi dafa tombé woon nag le 7 mars et donc du coup euh, du 7 au 8 mars nekk yëpp ay journée yu nga xam ni am journée de euh, célébration parce que dañ koy célébrer fii ci Sénégal mais également journée de revendication la war a doon ñu toog euh, kii def point sur les droits des femmes kon euh, véritablement bu ma déggee wala bu ñu xoolee véritablement ni ko Sénégalais di féetee kon dafa mel nii am na loo xamante ni am nañ ci maanaam umpale nañ bëccëg bi. waaw umpale nañ ko umpale nañ ko xaw ma ndax dañ ko umpale nag ndax xaw ma ndax dañ ko def exprès soo déggee may wax parfois exprès parce que dañuy jàpp ni ñun dañu gis ni ñun xam nga ci société boo xam ni euh, société bi système patriarcal la donc système boobu dafa dafa dafa profond dafa dafa vaste dafay dugg ci lépp. Et donc, le euh, système s'est fait de sorte que les hommes sont souvent privilégiés au détriment des femmes. gëdd donc, souvent, question yi ñeel góor ñi yi nga xam ni préoccupation góor ñi la souvent da di question yoo xam ni dafay dem ba ñu ba soxal ñëpp soxal ñu ñëpp ndax système bi mooy demee noonu ñoom ñoo jiitee ñoom ñoo yor am euh, doole ji et donc li leen yitteel ñoom en tant que góor souvent day doon loo xam ne day dem ba nekk une préoccupation Euh, collective ñëpp ñoo si bokk parce que dañ koy fësal et donc 8 mars nekkoon au début journée internationale des droits des femmes et donc boobu léegi ay ati at ñu gis ni célébration bi mu ngi gën a jëm ci kanam mais soo taxawee seetlu du objectif yi de début parce que ñun dañu woon comme que 8 mars la liñ ciy def mooy ak yelleefu jigéen def ay revendication bind ay revendication toog def une journée caytu xool li ñu am ci droit lan moo des ak naka la ñu mën a def ba atteindre li des loolu moo doon solos bis bi mais tey dañoo gis ni donte que ni am na célébration ñëpp nga koy wax mais célébration bi c'est souvent une célébration économique dafa dem ba nekk fête économique parce que dafay permettre à jaaykat tissu yi ñu jaay ndax ndróole yi dafay que dañ koy def producteurs yeeg ñuy def produit placement de produit parce que y a tellement d' émissions mais émissions yi malheureusement du dem ci li soxal bis bi mais day dem ci li mooy divertir ku jigéen kii dañ ko sargal na toog ñu way ko dañ ko jox ay cadeaux et tout ça et ñun en tant que féministe bu ñuy toog di xool di ñu ok bëggoon nañ de mu gën a ba ñëpp xam ka mais fës bi mu fës bu fës bi ñu gënal et donc li tax ma naan exprès soo toogee xool ni ah donc c' est un su fekkee ñiy tirer les ficelles xam nañ ne bis bu fësee. ci revendication bu fësee si njaxtu bu fësee ca na mu war a fësee xëy na du doon li leen di gënal mais donc kon nañ ko fësal mais ci beneen anam bu nga xam ni ñi nga xam ni defuñu prise de conscience ci li journée bi waroon a nekk dinañ ci gis seen bopp parce que dinañu feetu dinañu ndróole dinañu def une journée sans travail mais ñi nga xam ne nii bu fekkoon ni jigéen ñooñ def nañ revendication ñoom ñooy war a ko apporter dinañ ci gis itam seen bopp parce que à la des revendications et tout on va juste les remercier parce que su fekkee ni ay patron de d'entreprise lañ dinañ teg benn enveloppe pour faire la fête bu fekkee c'est l'État il va peut-être faire un discours comme ça sans jamais peut-être conséquent ainsi de et donc dafa mel ni système bi dafa def benn jeu daal de de récupération tout en maintenant la journée mais dugal ci contenu bi nga xam ne du woon contenu boobu moo ko taxoon jóg mais par rapport à ça lan moo si war a doon véritablement la responsabilité des femmes Euh, la responsabilité des femmes euh, euh, mooy revendiquer revendication genre toog xool ñun en tant que jigéen suñu àq ak yelleef si mois de mars bi kay day nekk mois de femme comme que dañ ne mooy mois de la femme liñ ci war a def mooy lan mooy jëmale kanam femme yi parce que xeex fa xëmb-xëmb gi nii soir soirée tuddee def lii def yooyu du loolu mooy jëmale kanam parce que bu weer bi deewee après si fini dañuy ñëwaat toujours fi ñu toog kon tey képp koo xam ne bonne volonté nga maanaam ak ak yelleefu jigéen yitteel la ak jigéen ñi nga xam ne def nañ prise de conscience ak ñeneen ñi dañu war ñu toog ñu ni ah man mi nekk si entreprise bi naa xool lan moo nekk sama revendication ci weer bi parce que gis naa ni kat Euh, lii ak di matewul gis naa ni sax ci parmi les revendications ni gis naa ni que si entreprise sax toilettes yi amul ay toilettes genre c'est-à-dire amul ay toilettes yoo xam ne nii pour jigéen ñi la ba bu ñu tollee ci période bu ñuy gis seeni baax dinañ fa mën a dem fekk fa lu ñu mën a euh, protéger woo et tout ça gis naa ni que si sama entreprise bi am nañ possibilité am nañ moyen wu defal ñu benn crèche quelque part ba kenn ku ci amati sa sa doom bu nekk si parental di nga ko mën a indaale déposé ko fa booy xëy di wàcc mu daal di lay empêché ngay dem di wër wala ngay inquiété wu ainsi de suite ainsi de suite gis naa ni kat ci entreprise bi waroon nañ ma may lii waroon nañ ma may lii ñu nekk si entreprise ñu nekk ci école bi ñu nekk si yeneen institution ñu xool ca fa ñu ne lan moo ca des mais itam sur le plan national état ak engagement yi mu war a jël ñu càmbar nag ci code de la famille càmbar ci àq ak yelleef yi tey aujourd'hui on nous parle de action de recherche de paternité bi nga xam ni tey ci code de la famille bi dañ ko interdire bu la day jigéen ku góor sàkku la ba nga jëlee fa wann lor amul benn action bu la yoon may lu valide daal nga pour nga ni diw moo ma ëmbal donte que bu ñëpp xamee ni diw moo la ëmbal bu diw nee bañ naa mënoo ci moom dara parce que yoon dafa protéger diw boobu ainsi de suite kon donc si suñu àq ak si suñuy droit dafa am tellement de choses yu des a des a des ba nga xam ni kon tey bés bi warta woon nekk bésu xumbate mais bésu analyse ak naka la ñu mën a def ba ba pousser mbir mi la waroon doon. Euh, kon tey jii su ma la déggee euh, àq ak yelleefu jigéen ci réewum Sénégal mu mel ni am na lu bëri yu si deseen mais am au Sénégal am si dafay nuru mel ni lu ñu salfaañe. waaw am na lu ñu salfaañe am na itam lu am parce que am na lu am mën nañ ni Sénégal gis nañ fi. am nañ fi loi qui criminalise le viol donte que bu fekkee ni gis nañ ni ba léegi des nañ suñu suñu ñu ngi xaarandi pratique par rapport ak application bi bu fekkee ni it am nañ tey aujourd'hui jigéen ñi am nañ possibilité donner la nationalité à leurs enfants bu nga xam ne nii tey bu fekkee papa ji du sénégalais man suma doom bu ko juree en tant que sénégalaise am naa possibilité jox ko nationalité sénégalaise ak yeneen yeneen ak ak yelleef yoo xam ne gis nañ ni de plus en plus ñu ngi koy na itam ci lu état bi na ko mais métti parce que tey su ma waxee benn cas aujourd'hui bu ñu nee ni Sénégal ratifié na le protocole de Maputo te le protocole de Maputo mu ni la par exemple ci benn exemple euh, jigéen bu nga xam ne dañ ko violé wala mu nekk victime d'inceste maanaam nijaayam wala papaam tëddee ko bu ci jëlee ëmb ah ba war nañ ko mën a may accompagner ko bu fekkee daf ko bëgg a ñu def ko may ko mu avorter ci anam yi gën a mujj loolu Sénégal ratifié na ko nee na sans réserve mais tey jii ñu wax la itam ci ak ci yoonu Sénégal avortement délit la boo ko defee dañu lay tëj. te buñ lay tëj bu boobaa du ñu xool lan moo tax nga ëmb ñu xool ni war xa papaam wala frère am moo ko tëddee ba mu ëmb du ñu xool ni dañ ko violé groupe de personne ñoo ko violé duñu xool loolu yëpp dañuy parce que avorté na nañ ko tëj tëj ti vois et donc yooyu yëpp di ay mbir yoo xam ni tey buñ koy xool dañu ni way est-ce que ak yelleefu jigéen ñi doon na une préoccupation principal pour suñu ñu ñu jiite. dinañ ci poser question mhm. muy lu am solo mais beneen bi également aussi ci ba tey ci ak ak yelleef yi léeg-léeg sax euh, côté liggéey yenn entreprise ni peut-être mënuma jël jigéen ndax jigéen nii jigéen na leen laa également aussi beneen problème boo xamante ni jigéen ñoo ngi koy dund. bien sûr parce que mooy li ma lay wax ça c'est des remarques sexistes c'est des considérations sexistes parce que tey dañuy jàpp ni non jigéen ñi lii jigéen ñi laa mais tey jigéen ñi wane nañ en tout cas. <laughs> wax wax dëgg yàlla wane nañ lu ñu mënee liñ naan waneel ñu gis je pense que aujourd'hui jigéen ñi ci am euh, ba branche yi ñu leen mu confié yëpp wane nañ xarañte bu ñu fa taxawee wane nañ taxawaay wañ fa am parce que buñ ne yenn saa yi ah parce que jigéen dafay ëmb mais ëmb du feebar état de grossesse la ñuy wax donte que ni ñu ci bëri boo même am bokkuñu façon wi ñu koy defee mais mën nga gis tey koo xam ni nii bu ëmbee dina feebar feebar yu bëri mën nga gis koo xam ne mën na ëmb ba ci cëppaandaw ga dërëm du ko jot tu vois mais su loolu su amee waroo si basé wu nga ni parce que dañuy ëmb duma leen jël lii parce que dañuy gis seen règle yi souvent dañuy sa du lii mais ñun ñoo war a organiser wu de sorte que tey ku jigéen kookee bu nekkee ci état de grossesse bi entreprise bi organisé wu de sorte que loolu du ko yàqal dara moom en tant que jigéen mais du yàqal dara entreprise bi parce que conditions yi dafay adéquate def de sorte que tey ku jigéen ki fu mu mënti nekk en tenant compte de ses spécificités maanaam li ko yàlla may en tant que jigéen mu doon lu particulier par rapport à l'homme dinañ ko mën a valoriser wala dinañ ko mën a protéger ba nga xam ni du yàqal ma sàmba du yàqal ma dem loolu nag déconstruction moo koy mën loolu système bi ni mu demee moo koy mën parce que ni ma la koy waxee depuis ca début ba ba ñuy tàmbali di sëmp ay jalon comme que góor ñi ñoo ko daan def dañoo tenir compte rek ci ñoom ak seeni i aptitude ak seen nature bàyyi jigéen ñi parce que ci période boobu xëy na jàppoon nañ ni jigéen ñi ci kër ga rek la ñu waroon nekk tey gis nañ ni jigéen ñi ñu ngi bay seen waar fépp kon donc toog taxaw jot na pour ñu repenser la chose en tenant compte des particularités ou des spécificités de femmes c'est-à-dire jigéen bi dina soxla lii dina soxla lii te xëy na lii góor yi du ko soxla naka lañ ko ci inclurer ba nga xam ne bu ca tollee du ko yàqal dara du yàqal dara keneen ki Mm-hmm. mais par rapport à ça aussi euh, est-ce que gis nga ne information bi war a jàll véritablement ci jigéen gi ñu gën a xam seen ak ak yelleef information boobu mu ngi jàll wala peut-être dafa jàll foo xamante ni dafa limité par exemple bu ñu nee mbir mi dakaar rek wala àll bi tam ñu ngi siy jot wala jotuñu si. waaw xam nga. Euh, fukki di gas fukki di <laughs> suur pënd waay bari donc ñun en tant que peut ay féministe wala ay euh, ñu nekk ci organisation de société civile bi wala sax ay journalistes parce que man journaliste laa de formation et je pense sama métier même ak kuréel gi ñu teg li ko gën a tax a jóg mooy naka la ñuy gën a vulgariser yooyu naka la ñuy gën a mën a def ba suñu information yi ñuy joxe pàcc ba ñuy jox ko jigéen ka ak ak yelleefam gën a am solo parce que dafay permettre ñëpp mën cee jote maintenant li may wax fukk di gas fukk di suul xam nga système beeg ni mu demee def na de sort que tey fu jigéen ñi waxee dégg nga li ñuy wax ah jigéen di Sénégal di ñu divertir donc loolu day tax ba souvent information ba ngay bëgg a joxe du eggee na nga ko bëggee wala ña koy détourné dañuy bëri tey boo jugee wax ni àq ak yelleef ñu ni fële lañ jugee ñee ñëw leen influencé alors que du loolu tey bu ñu waxoon sax ci question bu ñuy gënoon doon gën a travailler récemment sur les questions d'avortement en cas de viol et d'inceste ñu ni ah réalité extérieure la tubaab bi lañ ko dégg alors que Sénégal gi amoon na ay at ci mbëbës ñu découvrir fa ay fœtus yu bëri tey boo demee ca prison bi ba dañ naan la jigéen ña fa nekk ci cinq parmi les cinq causes premières les premières cinq causes euh, cause u euh, bokk na ci te souvent ñooñu bu ñu leen xoolee dinañ ci gis ñoo xam ne ay victimes d'inceste lañu woon wala de viol tu vois donc réalité yooyu ñoonu wala xeex boobu ñuy porté ci suñu réew lu ñu sukkandiku ak jigéen ñi fi nekk li ñuy jànkonteel donc du coup ñu ngi def lu ñu mën mais ñeneen ñi aussi des fois du ñu dem ba ci biir wala dañuy bëgg opposé wu pour opposé wu wala dañuy bëgg jàpp ni bu ñu jugee ni féministe lañu wala militante dañoo ñëw pour jël place suñu góor ñi alors que du parce que ci société bi ñu nekk góor moo fi nekk ak jigéen ñoo bokk kon ku si nekk am nga sa pàcc ku si nekk am nga sa wàll et ku si nekk mën nga occuper sa place sans pour autant nga defal euh, nga nga nga yàqal keneen ki tu vois et donc loolu ñun ñu ngi koy def maintenant jigéen ñi ci euh, dëkk yi gën a sori que dakaar ñoom it am nañ seen i réalité ñu ngi xeex parce que du ñun ñu nekk Dakar nii boo fa demee da ngay gis tey jigéen ñoo xam ni ñu ngi bay seen waar ci bay bi ci ci ci napp bi tey jigéen ñi foofu donte que ni souvent dañuy day métti ci ñoom parce que li nga xam ni loolu la alin di ñëw di waree Aline bu wanee carte d'identité am mooy doomu diw rek mën nañ ko jox teer mais bu dee war xala dinañ ah est-ce que ku jigéen ki na dem yu indi frère am na dem indi jëkkëram na dem indi papa après mu al ko est-ce que donc li ñuy laaj ku jigéen ki souvent day gën a metti condition yi ñuy tegal ku jigéen ki day gën a metti mais n'empêche que ñoom ca la ñu ne ña cay bay seen waar ak seen façon ak seen i mots yu ñuy utiliser ak seeni jëfin ya convenir mais di xeex itam et donc donte que ni des fois ñoom parce que dañu nekk dans des zones un peu du ñu jote ci médias yi duñu jote ñu leen ni visibiliser mais ñoom ñu ngi bay seen waar ca fa ñu toll ak ci anam ñi mu gën a muccee et je pense que ñun ñëpp dañu war a gën di booloo pour muy gën di mën di am impact mais yombul quoi su bu dee société bu mel ni peut-être euh, avant dernière euh, question bi tey jii euh, boo defee xayma ci wàllum ñeel métital jigéen wàllum viol wàllum dóor jigéen wàllum xarfal yeeg yooyu yëpp mu nekk ay fee yoo xamante peut-être daan am Sénégal est-ce que gis nga tey ji loolu am na recul wala ba tey Sénégal mu ngi siy wéy di dund ba léegi. Euh, gëw ma ni ndax changé na ou pas parce que ñu ngiy wëy di violer suñuy rakk ak suñuy doom ak suñuy xarit ñu ngi wëy di dóor jigéen ñi souvent ñu ngi parce que li gën a metti li gën a li des suñu xel ci vingt 2022 bi ñu génn mooy ay député ki assemblée nationale ca foofa ñu fay dóor jigéen te mu am ba tey ñenn ci société bi pour des causes politiques ñu mën a gëm jàpp ni loolu yoon la loolu c'est grave tey bu ñuy wax ba léegi ci Sénégal diw sàkku nañ ko dañ ko violé au lieu ñu xool naka la nekkee victime ñu ngi xool naka la nekkee coupable lu mu fa defi woon lu mu soloon est-ce que lan la nekkoon est-ce que ibaadu la woon wala est-ce que da doon génn guddi est-ce que da doon jaay boppam wala est-ce que dafa toogoon ci kër gi te yooyu noonu ñuy xool di ko interroger du loolu mooy valider viol ou pas parce que viol mooy séq jigéen ci bu mu ko neexulee wala maanaam ñaar ñuy séq daal ca nga xam ni consensus amu ci et donc bu ñuy wëy di gis ci débat bi ci opinion bi yooyu sujet wala yooyu question di tegu mënuñu ni avancement am na bu ñu gisee ni sax ci vingt 2022 bi am na ay góor yu créé seeni groupe ci biir groupe ba lu ne ñu koy yàkk jigéen ñi surtout ñi nga xam ni ñooy jigéen ñi nekk ak way laago wala jigéen ñi nga xam ne nii seen loxo josu seen ginnaaw ñuy fan di wax wax yoo xam ni tegginewul ci ay góor yoo xam ne bu ñu génnee dañ ni ñoom ay kilifa lañu wala ay nit la yu ñu respecté su boobaa duñ ni avancement am na suñuy gis aussi ainsi de suite ainsi de suite ay loi di fi am mais toujours pratique bi dafay def défaut toujours jigéen ñi ñu ngi leen di dóor ñuy woote police ñu leen di jox numero naan leen bu ko defaatee ngeen woo ma toujours ay jigéen ñu ngi leen fii rey ki leen rey di ki jege ci ñoom loolu wala di seen i borom kër et souvent sax yenn saa yi sama mbokk journaliste si bind ni ah parce que diw amul doom pendant pas parce que ils von juste dire Fatou amul doom pendant plus de cinq ans de mariage elle a été tuée par son mari même si l'intention première je sais pas n'était pas de tenter à valider ou quoi que ce soit l'information de dire cinq ans de mariage sans enfant n'a rien, je ne pense, <laughs> à voir avec le fait que le gars a tué vraiment une femme. Et c'est féminicide là. Tu vois, ak détail yooyu noonu parce que avancement ci réew euh, Omar Pène da doy wax ni football ci réew ci club yooyu lañ koy ràññee <laughs> bu club yu baaxee rek fu dëgër donc kon avancement ñun ci ci réew ci ay droit ci opinion bi ci nit ñi ni ñuy xalaatee ni ñuy defee ci lañ koy mesurer mais bu ñu remarqué ni y toujours ces comportement sexistes de la misogynie des harcèlements il y toujours le fait de toujours vouloir considérer la femme comme étant quelque chose boo xam ne nii ku góor ki moo ko moom à la disposition de l'homme le fait de voir toujours que ku jigéen ki ni muy doxaleeg ni muy defee ku si nekk am nga si son mot à dire yooyu noonu yëpp day tax ni gëmuñ du ñu gëm ni avancement am na parce que ñun ñu nekk en ci milieu bi di def ay recherche yu bëri dañuy gis ni sujet yi nga xam ni ak thématique actualité yi nga xam ni yooyu la suñu maam yeeg suñu yaay yi confronté woon ñun moom la ñu nekk di confronté et donc dafa mel ni benn genre roue nii buy tourner donc on a beau à parler à faire mais ça reste encore beaucoup bukk bukk beaucoup de choses et ça c'est la responsabilité de tout le monde ñëpp ñoo ci war a dugg xeex ci pour que mu jeex fi loolu yëpp lan moo si war a mën a doon nag euh, wàllam véritablement. waaw état bi am une volonté sincère de vouloir changer les choses mais aussi am une responsabilité xaw ma nu muy waxee responsabilité lañ koy waxee walla en tout cas am un engagement déterminant parce que tey bu fekkee ne soo jugee nar a teg jalon yaa ngi xool des retombées politiques walla est-ce que mesure bi dafay populaire walla dafay impopulaire loolu du jëmale réew kanam. je pense que tey bu fekkee ni jigéen ñi def woote ay nit ay grand théâtre ou je ne sais pas ou wax say discours ou je ne sais pas quoi c'est pas ça véritablement qui va régler le problème je pense que le problème volonté bu sincère une détermination engagé wu xool def parce que assise ay assises yi mën naa ñàkk ay nañ dem tëju fii mën naa ñàkk parce que li ma lay wax nii am na ay kuréel yu bëri yu tëju il y a de cela des années xool tout les dispositifs discriminatoires yëpp yoo xam ne ni ay article lañ te gis nañ ni jëmalewul kanam ak yelleefu jigéen ci code de la famille teg ko ci kayit jox ko président pour ñu xool naka la ñuy xoolaatee yi booba léegi amul suivi suivi tey aujourd'hui kon mbir mi dootul ay théorie mbir mi pratique la que le président wala le gouvernement wala les responsabilité étatique prennent leur euh, leur disposition am engagement ni lii ak lii ak lii mu ngi fi woy di am dinañ ko dakal mais itam ñoom bu ñu defee loolu ba pare ñun ñii ñëpp dañu war a xam ni dañu war a changer suñu bopp te changement boobu du doon xëy na loo xam ni ça va être du au tac mais ku si nekk mën nga engagé wu ni man mii kat si samay comportement dinaa xam lii ak lii dinaa ko changer su ma gisatee jigéen dinaa jàpp nii nit la am na ay compétence am na ay possibilité bu dee sama collègue dinaa ko respecter comme sama collègue bu dee koo xam ne nii dafa war a liggéey ak moom dinaa transcender un regard sexiste wala des comportements wala des kii dinaa ko xool daal comme une personne qui aussi capable que moi ku si nekk bu amee mbir moomu ci sa biir nga ni ku jigéen la dinaa ko respecté parce que nit la dinaa ko respecté sama égale la dinaa ko respecté dinaa ko jox valeur jox valeur li muy liggéey ainsi de suite quoi ku si nekk jël engagement boobu mais également ci xale yi aussi ci kër yi ñu yar leen xoolaat la système éducatif xoolaat ay modules yu gën a am solo yu ñu ci mën a dugal xoolaat jigéen ñi lan mooy seeni mbir particulièrement yu leen yitteel ñu gën ko jël en considération je pense que loolu bu ko defee on peut se di si quelques années les choses dina évoluer et que dina mën a changer ci ñëpp. Mhm. di la jaajëfal soxna Warxa ci dalal bi ñu dalal mais aussi ci xam-xam bu leer bi nga xamante ni jot nga ko jukki jox ko suñu ay téléspectateurs ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñuy seetaan. waaw maa ngi lay remercier Aline di leen remercier baax si déplacement bi ak si ñëw bi fii di tàggatoo rek di wax ni euh, réew mi moom.

du pour une célébration, mais c'est une journée de revendication et qu'on espère que d'ici quelques années, nous comprendre davantage le principe pour que bu huit mars jotee mu mel ni fête du travail parce que yeneen ci yeneen i réew yi aujourd'hui joge nañ ci festivités yi pour dem ci ay marches dem ci ay revendications j'espère que ñun it d'ici quelque temps dinañ mën a dem ci foofu marché ki revendication yoo xam ni buñ ci jotee dara pour le bien de la nation lay doon di leen jaajëfal bu baax ci déplacement bi merci beaucoup jërëjëf euh, soxna faatu war Warkha Samb moo nekkoon tey suñuy gan nee naa leen moom mooy fondatrice bu Warkha TV di plateforme bu yaatu boobu xamante teg na ko nekk taskatu xibaar féministe nekk itam koo xamante ni si dafay xeex lu bëree bëree bëri ci àq ak yelleefu jigéen ñi tey moo nekkoon suñuy gan ñu waxtaanee solos juróom-ñetti fan ci weeru mars bi nga xamante ni ñu ngi koy ñu ngi ci jëm si du yàgg dara ak itam gis-gis bi mu am ci àq ak yelleefu jigéen ci réewum Sénégal loolu yëpp nag ñu waxtaanee ko di ko jaajëfal di leen dig daje beneen yoon beneen invité suñuy ay plateforme syndicalisme TV mbokk yi jàngeen gis ngeen ko lii lañ leen indiloon tey jii seen invité seen site di syndicalisme TV waxtaanee 8 mars gis ngeen xam-xam bi nga xamante jot na ko see jukki mais également aussi l' importance de la journée ak li ko taxoon a jóg war xa Samb détaillé na ko expliqué na détail ak itam naka la ñu war a mën a taxee ba ñu delloosiwaat à 100 pour cent ak ak yeleefu jigéen ñi. ñu xamle naka bës bi du bësu xumbuteeg rek bésu niroole wala bésu xumbaay ak rumbaay déedéet yees na loolu maanaam tey ji delloo si waat ak ak yelleefu jigéen ñi kon di ko jaajëfal di jaajëfal équipe technique bi ñu àndaloon nga xamante ni mu nekkoon ci cadrage bi euh, di Yves mégalement aussi coordination bi ñoom nga xamante ni moo di xaadim si montage bi di ko jaajëfal daam Sarr di leen dig daje beneen yoon ak beneen invité ci la télévision du moment di syndicalisme TV. jigéen yaay suma yaay ne jigéen kay jigéen suma wetandoo yow yàlla moo la ne ko woo jigéen.